Leewtoo production gannaaw ba ñu jógee Joal Fadiouth ma ne leen fan ngeen jëm ñu ne ma fële ca Ndangan Samb gala de lutte traditionnelle bu mag la 12 avril fii ci Ndangan Samb ak Leewtoo production Leewtoo production nag amateur yépp ràññee leen ci événement yu mag te événement yi bu ci dàq sa moroom nga ne bii la mise bi di 1 million 500 mille francs poids lourd ak poids léger kan la ñu tuddee làmb ji monsieur Karim Sène maire de la commune de Fimela Karim Sène bi nga xam boo ko séenee muy dem jarul ngay laajte jàppal ne développement la ak li ko wër rek a tax muy dox ah mbokk amateur làmb yi kan mooy woy lamb ji ndey faatu aadama Jali gannaaw ba mu wàccee Joal Fadiouth ba zéro degré mu ne ma nangaan sàmb nag sama fief la maa moom duma ko xëccoo ak kenn kan mooy tëgg lamb ji Ibou Sène le grand tambour major bu Fimela partenariat RTS 1 ak Leewtoo TV wasaare lamb Equivox Lit TV ak info lamb ji ngeen mën koo seetaan en direct ci Leewtoo TV ah mbokki amateur yi yow mi bëgg a gis nooju wala xabal xatar bi wéyale wala kottum kolma wala yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf rendez la le 12 avril fii ci Ndangan sàmb Leewtoo production woon la loo mës a gis ci lamb